mi ngi noonu tey li mu sol ca kaw ba ca suuf. weex la lépp weex la. waaw mais nag weex moom. loolu weex moom jàmm lay jàmm lay signifié. waaw weex mooy moo weex mooy la paix. maa ngay seen maalaw ca kanam maa ngay seen ordinateur démb la nga def la nga def la nga def la nga def gaal gi ñëpp gis nañ ko macha allah mbër yàlla na si jàmm yàgg. borom équipe nationale gi noonu borom drapo chef de l'état gi noonu ordinateur moodu fay jëlal ma ordinateur borom cap bi jëlal ma ordinateur jëlal ma ordinateur mais ordi ordi ordi naa la noo leen waajal mbër. dina ziar bu baax a baax. noo leen di ko ñaanal yàlla may ko ndam rek. koo gis ci moom jamono bi. alhamdulilah sant yàlla bu baax. yëg mi ngi mi ngi baax fi mu toll nii. waaw sant yàlla bu baax a baax. combat bi luñ luñ ci mën a xaar. di ñaan yàlla yàlla may ñu rek. luñ ci mën a xaar xeex wala bëri. non ñaan yàlla muy yàlla may ñu ndam rek. jaajëf ordinateur a ngi noonu le grand champion champion CEDEAO champion drapeau du chef de l'État Gérard maa ngi lay ziar lépp jàmm waaye sama mbokk Bawol Bawol yaa nga noonu waaye Ablaye Ngom borom Sambe xam naa booy ñaako ko andi borom curuxu curuxu borom bu jeexee rek jeex na ma nga noonu umulaay ña ngay ña nga ca dernier réglage fi mu toll nii pour booy Niang dugg ci biir sat bi ñu ngi ci dernier réglage yi. demal yow mi yow yow mi ménagère ak oto bi laa wax demal ngeen diw wàccal diw wàccal oto man duma wàcc kenn ah, indiwuma leen fi duma leen wàcc kon xam lu ñuy def léegi kon dañ di wàcc oto bi dugg bu oto bi duggee ba pare ñu seet ñi dugg nga duggul la. Ah. voilà loolu mais dama ne waaw waaw. Père Bourkhane gi noonu di wax ñi nga xamante ne ñoo yor organisation bi am na lu ñuy waxtaan dafa mel ni jubóoguñu ci kawi kàddu ni mbër mi war a duggee mais lépp incha ci jàmm lay mujj rek lépp ci jàmm lay mujj ña waxtaan. mi ngi noonu dañoo bëgg oto bi kese dugg dañoo bëgg oto bi kese dugg bëgguñu kenn topp si dañoo bëgg oto bi kese dugg oto baa ngay raam di ñëw umulaay cey exactement quinze heures passées de vingt et un minutes ci la Tapha dugg ci la Boy ñaar dugg si ci biir stade bi maanaam ñetti waxtu toftal na ñaar fukki simili ak benn ci la Boy Niang ràmbal ndànk dugg si biir arène nationale sécurité ba ña ngay wax ak ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci biir oto bi. sécurité bi mooy lim ay ca jegel umulaay umulaay jegel mbër a noonu mbër nga ca gannaaw cey may ko may ko cey nga ca gannaaw gaay ñu waxtaan ay ca oto baa nga noona oto baa nga noona ay ca umulaay mais Tafa mbër maa ngi lay ziar. delloo ziar Tafa Kandji maa ngi lay ziar. delloo ziar mais tey pourquoi blanc. waaw jàmm jàmm jàmm rek. pourquoi blanc moom jàmm jàmm jàmm rek. naka mbër. waaw sant tey andi. ñaan yàlla mu may ñu ci xeex wala ci bëre. lu mu laaj rek. incha allah lu mu laaj rek bu soobee yàlla. day gaaw wala day yéex. lu mu laaj rek yàlla rek a xam. alaaji Mansour la batande jàmbaar yi fàkk tëdd la nee naa leen jigéen ju mën góor la waaw waaw sama caméraman bi kenn moon kenn du yow kenn du ma nga noona booy ñaa ngi noonu ci biir yor benn soccu borom curuxu curuxoo ngi noonu borom kopp foone bi borom sambe borom sambe njaaxeen borom sambe xojil cey booy ñaa voilà noonu la amul yaa xam jël dañ jël dañ def ndànk waaw bu ñu kenn yaa li dañ koo waaj ay at loolu leer na nee na li nu waaj ay at kenn du ko parax paraxee ci ay simili loolu leer na ki nga xamante ne bii mooy làmbaloog bu booy Niang mbër maa ngi lay ziar mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi ziar bu wér. namm naa la. ala raw noo leen waajal mbër. waaw waaj nañu daan waajee rek comme ni mbër yëpp di waajee. Mhm. entraîné teg ko si yoon préparé. Mhm. waaw di ñaan yàlla may ñu dab. ñëwalaat ma ci palmarès su Boy booy waaw Boy Niang Mamadou Diouf le 2 octobre 2008 Batista le 28 février 2009 Akon le 1er mai 2009 Mbis le 21 juin 2009. Brise de Mer le 20 décembre 2009 Pape Sène le 25 juillet 2010 la bëreel mu daan ko le 27 février 2011 daan Dolf le 10 avril daan Sakajo le 2 juillet 2011 daan Les 2 le 9 avril 2012 Zos daan ko le 8 juillet 2012 mu daan Baye Mandione le 23 février daan Gaye Garga Mbossé mars daan Gouye Gui le mars daan Sa Thiès le 11 mars 2018 mbëreeg Lac de Guiers ñu mas niil arbitre bi déclaré après ñu déclaré ko vers le 13 juillet 2019 moog Lac de Guiers 2 ñu ñu mas niiloon après ñu jox la de Guiers victoire par recours mu war a jàkkaaroo Tapha Tine le 19 décembre 2021. tey naka ngeen waajal mbër. waaw comme ni ñu daan waajee rek comme li mbëri di waajee entraîné teg ko si yoon bëgg combat bi. ñëw ci fulla ak fayda gën kaa woon ni maa la gën a bëgg bis bi di ñaan yàlla tamit ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mu may ñu daan ko jël bu gaaw bu rëy bu set wicc bu benn werante ndax booy ñaa ku ko xam-xam ni homme de défi la te combat bii da koo bëgg bëggal ko boppam te si kàttanu yàlla dina duma tafaatin daan ko jël bu rëy. dégguma dina duma tafaatin daan ko jël bu rëy ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. soo ma doon wax ci ay foori Boy Niang lan la. bari na Boy Niang telewul dara mën na bëre mën na xeex mën na action continuer mën na bagaar benn bennal mën na lépp lépp yàlla makaar macha allah yàlla may na ko telewul ci bëri ndax da koo fowee jàng box daan topp baayam dem Pikine mbooloo di tarbiyu ay Malal Ndiaye ay Cek ay Boy Sey ay ñoom Baboy Ndiaga Diop ñoom ñëpp da leen a tarbiyu waaw dafa mokkal làmb da koo tarbiyu ba mu mën ko waaw tolul ni gars yi waaye ku ci dajeeg moom ñem doo doo ko ñeme bu bëreeg yow jàppala daan la boo xeexee mu benn benn la yow dóor la te doo fayu. ñu bëri ne dafa wàññi poids ci combat bi est-ce que dina ko. lii mooy poids de forme booy ñaa bu diisee arrangé ko contre la déggee dafa a diis combat bi xaw a am ay problème mu dem ba xaw a sonn bëgg a def action mënu koo def ndax amul woon vivacité rapidité ak vitesse d'exécution léegi la mu ñàkkoon nag moom la amaat ci combat bii mooy dafa entraîné ba yëg boppam ba koo gis si àdduna daan la sa mbër mi daa jeex lii mooy doole ak état bu dalee ci kaw waaj ji waa ji mooy raw bal xa ah, tey mën nañoo xaar combat bu gaaw wala bu yee. combat bu gaaw ça dépend ci moom bu ñëwee pour mu gaaw mu gaaw bu ñëwee pour téye boppam ñu duma ko créé lu ko juumloo jëli ko daan ko jëli bu rëy ci kàttanu yàlla ak mbaaxam jaajëf lambaloog bu booy ñaa macha allah ma nga noona man dama rafetlu li nga xamante ne bii mooy xam-xamam jaajëfal nañ ko jaajëf ba léegi mbëra nga ca biir oto ba di def ay débat débam wàccagul ma nga ca ay débat wàccagul waaw maa ngi dégg sànq benn waay na buñ ko sorxo sorxo buñ ko yàkkamti buñ ko parax paraxee ndax lu waaj ci ay at waaj ko ci ay weer waaj ko ci ay semaines yu bari doo ñëw ba ci bis bi di ko yàkkamti nee nañ leen da ñuy bàyyi ñu def ndànk jël suñu temps def li ñuy def ma ne ko ànd na ak yow waaw waaw ciy làmb moo doy waar waaw bu jeexee rek jeex na damay dégg ci père Khadim Samb mu naan bëre folo wante ku daanu rus maa ngay seen Assane ca kanamu Boy Niang mu taxaw yor benn sac bu ruus ñu bind ca Manchester United waaw cey waaw waaw Molo Niang moo nekk moo yor kees gi noonu Molo waaw Baara moo yor bee jënd kooba ba Dégol Junior moo yor saak bu marron bi noonu cey Dégol moo yor sees bi ana Xaddaafi Afrika doomu ndeyu Boy Niang borom ginaar yi borom jurbe ngoog loo wax mu ne Boy Niang bëgg Boy Niang bu jurbel yëpp xam ko macha allah yàlla na si jàmm yàgg. mbër ba léegi wàccagul de. ba léegi mbër wàcc gut nañu may mu dem wis ñëwaat day wis ñëwaat nañu may eh. waaw bu ñëwaatee ñu soog eh. Eh. na dugg mu des kenn day dugg mu des kenn day wis ba mu pare ñëwaat waaw day kenn la léegi mbër bi ak kenn lay àndal fii. waaw déglu bu ñu duggee. yéen borom bu ñu dem fële ñu xool comment parce que fukki nit lañ ko may ak moom. ak ak ak ak entraîneur. règlement bee ko wax. ñun règlement rek la ñuy topp. waaw tey waaw donc nga am loolu règlement rek la ñuy topp fii dañ fi nekk pour tout le monde. parce que làmb ji dañ ko bëgg a defar comme ñëpp. leer na te moom mooy ambassadeur de non violence. jàmm rek la ñu bëgg. règlement yi la ñuy topp par force gars yi dañuy ñëw ba dëkkee tey ci moment je ne sais pas nañ def ni ñu ko bëgg. ok nañ ko ni ñu ko bëgg après moom nee na. ñëw moom ak benn mbër dugg benn kii ay ca umulaay jëlal ma ña ngay wàcce bagage oh, loolu pañe la loolu la mag ñi doon wax pañe sey loolu loolu ay ca umulaay boo ñaa ngi noonu di saraxe mi ngi sarax ndox mi ngi saraxe xale yi ndox ma nga noona ma ngay joxe ndox ma ngay saraxe ndox bu sedd ma ngay jox xale yi ndox mi cëy la fils de De doomu De bi borom càppa coli gaa ngi noonu ah léegi nag li des mooy mu wàcc joxe na ndox ma joxe na ndox ma léegi sampiyon wàcc léegi mbër wàcc gannaaw ba ñu wàccee li nga xamante ne bii mooy xarfu xurfa yëpp fi mu toll nii wàcce nan xarfu xurfa yëpp li ci des mooy mbër wàcc mbër a ngi sax benn soccu toog ci buntu oto bi mbër a ngi sax benn soccu toog ci buntu oto bi cey champion cey borom curuxu fis de Dégol kooku mooy borom sambe toog a sonn borom Sambe ñaaxeen borom Sambe ngewel borom Sambe école borom Patar borom Gàppo borom xojil borom Ndulo borom Dala borom Kër Ibra Yaasin ba ni dugg Touba Mbacke kii borom Bawol kii la ay maamam soqi koo Sambe too ko cey ñaa ndawoon na ma tafaatin ñaanuma ko dara te lu ma may ma jël mbaru wàcc na umulaay booy ñaaw wàcc na ma nga sol benn mbubb naat deux morceaux naat la sol ma nga noona ma ngay dugg kii moo daan Mamadou Diouf kii moo daan Batista kii moo daan Brice de Mer mbara nga noona ma ngay dugg borom sambe tooko son borom sambe ngewel borom sambe ñaaxeen borom sambe école cey Boy Niang 2 doomu dégol bi borom curuxu curuxu borom bu jeexee jeex na borom kopp fonde bi ma ngay dugg amulaay àndal ak moom àndal ak moom cey loolu boo ñaar dugg na ma ngay dugg ca biir ci oto ba dugg ca biir oh doon wàcc ay at ay weer ay bis léegi bis bi yegsi na umu laay duggal xoolal ma stade ba rek ni ko ñaari mbër yi def ni ko mbër yi war a bëre def waa mais li ëpp na macha allah cey Leewtoo production